gars dañ koy sosal di ko bëgg a yàqal mënuñu koo lu leer laa leen di wax parce que mbaa am lu ko yàlla may dëmm yi nga yi nga xamante si nii day toj sell fal day ci deux minutes moom noonu la ko yàlla bindee rab du taxawal na ci côté wala dëmm wala ndóoxóor yëpp lay lekk billaay kontaan naa de waaw kontaan naa léegi naa la bàyyi nga doxal na continuer gars yi coow jëm parce que loolu laa bëggoon a leeral gars yi xamal leen ni. score yi jaay di mille personnes ñu ngi waaj seetaan dama ne la joxe woo tuuru ndayam joxe woo seetaan naa sa direct yëpp. gars yi ñoo lay faral di la a yóbbu baar yóbbu baar dafa am fu koy teg nan bàyyi ba déggee si gémmiñ dara. Mhm. waaw ñooñu nag bu lijjanti seen ndey. baale na. gis nga sama vidéo boobu ma waxoon avant avant bi jël nañ ko jël ko yóbbu ko VAR sans match. waaw léegi ñuy def nga topp pour jéem a yàlla moo leen ëpp doole ñoom ñëpp. waaye déggoo li ma la wax benn yoon benn yoon nga wax ne dañuy téegal sunu ndey ban demee danoo ñaf sunu ndey ñu ñibbisi kon yow loolu am nga ci ndam. le Messi. le Messi tous. may sa ménagère. mooy foofu sëñ bu dribble ba toj waaw jeex na gay karam maa ngi nii demuk tataaram nag mi ngi sama loxo yi bu ma ne ko départal mu départ ndax am na xaalis mën na ko ay million la yor su ma ne kaa toogal mu toog mais bu wax ji bëree day toog parce que moom moom moom boppam da koy def pour Sénégal rek ak réewam ak Afrique billaahi mais ci loolu imaginer loolu ngay def sa réew ay nit jóg bëgg la yàqal yow pour bëgg si yàq yow yow yaa ngi xeex yow yaa ngi bëgg xeex pour sa réew yow ñoom ñu jóg yow pour bëgg la xeex kon réew mi nan lay avancé. waaw du avancé léegi nag mat bi dama la koy ñaan Karamba même boo demul Qatar man sa manager maa bëgg nga jàpp ci match bi ñu gañe ko. loolu fa loolu danaa si jàpp. waaw kay yemeen. dama bëgg match bi naa se doomu yàlla moo moom waa loolu la bëgg Sénégal xam ko. Sénégalais yi dañoo war a xam ne yàlla moom moom ndam yàlla mooy joxe ndam waaye karang maa yàlla tamit am na lu ko may bu di sukkandikoo gannaaw yàlla yàlla mën na cee jàpp pour Sénégal gagné wax bi dafa bëgg moom mu leer. mu leer nañ seeni nopp nañ. waxu cent pour cent trois bii lay Sénégal di gagné deux un quatre cent dépassé nga level yooyu bu ko waxati. billaahi. nekkal ci bu yàlla gannaaw yàlla yonent bi. ne li nga nekk dégg nga. bilaay. Arma Ndiaye moo xam naa bi Arma maa. Arma Ndiaye. Arma woote. Arma maa ngi ci live bi waaw. yaa ngi may dégg nuyul ma Arma Ndiaye. Ah. moo ngi woote noonu ci kaw maa ngi gis appelam nee na ma wax karamba xaw ma lan Arma sama beneen numéro bi yaa ngi ci da ngay da woote sama beneen numéro bi booy. sama beneen whatsapp bi xam nga ko nee naa am lu ma la wax xaaral ma xool beneen whatsapp bi mu woo ma foofu sama beneen numéro bi xaaral ma xool tey lan war a tëgg ñoom tey la waa tey tey la Waly Seck sa doomu ndey di tëgg fële ca New York ak Viviane Ndour. dama bëgg dama bëgg mu may ma benn soirée bu mag Mbuur. non yow Waly bu ñëwee sa waay la Arma yaa ngi sama beneen numéro bi. soirée bu mag laa bëgg Waly Seck tëgg. bëgg. soirée bu mag la lay defaral. tey bu ñëpp coow fii nii te man maa koy engagé man Karamba. waaw xaaral ma woo Arma Ndiaye. Pambour namm nañu Waly Seck xam nga. waa léegi nag loolu nga war a def nag après jokkoog njaga tëggal waa Mbour lu rëy. waa Mbour namm nañu Waly. Ah, soxla nañ ko. Waly na mën a ñëw maa ngi si jàmm boy Karamba mi ngi lay déglu la Messi. <laughs> waaw waaw waaw loolu dama comme ni la demee ñu sant alhamdulilah maa ngi leen di ziar Karamba maa lay ziar Baye waaw ñu ngi lay ziar. Arma maa ngi nga am jàmm. waaw ñu ngi sant yàlla rek ak bëggale rek kontaan si yow. alhamdulilah léegi nag man dama dama am lu ma dugal man personnellement. waaw. parle en tant que sénégalais. vidéo fii def sorti parce que dafa am koo xam nekkuma fa te on est tous des sénégalais. Uh-huh. te gis nga ñu wuti dara defe naa bu ñu ko amee pour Sénégal la. yow nag dama uh-huh. dama d'accord ak yow damay damay duma d'accord ak yow ci benn côté xamul la mu tax waa li tax mooy li tax duma d'accord yaa njëkkee mm-hmm. mooy dèjà waroo waroo waroo kenn ku la Sénégal ndax yow chaque jour yaa ngi def gars yi di boobu léegi xaaru woon kenn kon waroo waroo woon toog di xaar léegi dem ba fekkee stade nga dugg andi say propre mot euh, def say salak Sénégal dugal ji nga génn ñi te dafa nekk jax moo xam te dama la moo waxati waxati ko nee na erreur la erreur juum rek damaa juum rek maa maa ngi koy jéggalu maa ngi koy maa ngi loolu question la damaa yow taalibe Serigne Touba nga moo tax moom tuuti tuuti teg teg wax ak yow. Mm-hmm. damaa bëgg foofu nga damaa bëgg newoon daan def te yàlla tax daanoo ci xaar kenn. mais ki nga Sénégal mm-hmm. di ñu ngi yëpp ñoom maa dem ba ñu ñu gagné barki sëñ Bamba ak ma bu jiw jafe dafa war nekk ci foofu nga nekkoon noonu mm-hmm. foofu nga nekkoon noonu waroo faa jub beneen bi nga li tax nag ñu revendiqué je comprends parce que tu es citoyen sénégalais te tamit neexul ngay def di sonn ci yëpp. bu la koy romb di yóbbu say morom ma xam naa ne boo bëggoon dem dara ñëw ku la yóbbu. non non yéen a xaalis de xam naa yóbbu boppam de. waaw naan leen laay ñaan rek en tant que sénégalais dama xam ni sama mbokk taalibe nga moo ko maay moo ko maay faal nga te dañuy waxtaan. loolu sama kilifa laay ñaan man Arma Ndiaye dama part personnel la koy ñaan ci jëmm Serigne Touba mën ci équipe nationale du Sénégal def ko te xam ne boo ko defee barki allah ji Fallou yaakaar barki Serigne bi ma yaakaar barki Serigne Fallou Mbacke bi ma yaakaar lépp lu ma ci man dinaa ko man. lépp lu ma xalaat. Fallou Mbacke billaahi wallaahi wal kitaabi dinaa ko def man maa la ko wax. xam nga yow après dinaa la woo ci suuf comme ça ñu gën a yaatal waxtaan bi. dara nag mais yàlla mën na lu loolu mais si li ma yàlla dénk dinaa si def lépp lu ma mën. kéem tolluwaay kàttan. incha allah rabbi. jeex na Baye Fall. jeex na jeex yow Adamo yow xam naa la la yow sama sunu sunu doom bi baax nga dëgg yàlla. loolu dëgg la yow kenn du yow ci man yéen man ak yéen a far ah yow après dinañ wax ci suuf. maa ngi kontaan maa leen di seetaan nag. jeex na booy. Ñoomar. yaax na yow. waaw kooku mooy Arma Ndiaye boo demee ba Arma dugg ci live bi xam ne da ngaa da ngaa bokk ci Ramadan ndax Arma bu lay woo rek xamal ne ñoom ñëpp ngi toog. yaa ngi dégg te ñi ngi seetaan di la bàyyi xel boo mee ba Arma Ndiaye yëkk téléphone di woote di la ñaan parce que ñoom ñëpp ngi toog parce que xam na ne ni nga mel ci waali xam na ne da ngaa bëgg waali xam na ne da ngaa bëgg Ramadan te tey ku leen xam-xam ne ci répétition la ñu nekkoon parce que tey dañuy tëgg ak Viviane Ndour fële ca New York le 23 ñu ngi New York waaw le 25 ñu war a dem Atlanta bu ñu fa jógee dem fële yaa ngi dégg noonu noonu lañ koy doxalee Ohio tey nag moom Ramadan gi yëpp ñu ngi lay seetaan Sénégal ak lay seetaan réew nga ak lay seetaan le Messi li may ñaanu waale bu tourné tourné am yooyu ba mu jeex mu tourné ko Mbour mu dal si Mbour. Waly ngi lay seetaan moom mi ngi lay déglu. loolu Waly spécial lay ñëw buur loolu damaa bëgg yow nga tëgg ko yow Karamba lay jinne man maa koy tëgg man Karamba la. waaw kay loolu laa bëgg nga tëgg ko. sant yi nekk mbuur bëgg laa gis. te nag benn affaire naa la ko wax rab dan laa bëgg. rab daan dan bëgg. muy si Njaay da laa bëgg. Armin Njaay da ñëpp la lay bëggee. Waly da bëgg ñëpp bëgg la. waale daf maa sagal daf maa woy daf maa fekk sama dëkk woy ma lu ma kenn musul woy. non dina la dina woyaat. kooku lu ma kenn musul woy barki Serigne Fallou Mbacké. dina la woyaat dina kontaan déggoo li ma la wax. bu la xamee bëgg nga ko rek jeex na moom noonu lay doxee. waale dafa nekk nit koo xamante si nii bu la xasee ba xam na yow cofeel bi am nga ko ci moom rek yow am nga problème. bilaahi. waaw kay léegi nag la messie des jinne le messie des messireurs dama bëgg. Uh-huh. bis naka tey doomu ndey Sénégal match bu mu am gannaaw yàlla dóoral match bi mu féete boor. Ah, yàlla moo ko yor de. yàlla ko yor. <laughs> loolu dëgg <laughs> mais naan defal ci li la yàlla may. waa defal ci li la may. ok xarit bi. <laughs> garamba. waaw man garamba man xam. xam naa man <laughs> lu ma la ñaan nga may ma ko. yow sama doomu ndey nga. waaw loolu moom dëgg la moo tax wala booy wax nii si bureau wala damay bëgg sax ngay wax si man parce que xam nga gars yi yaakaar yow da nga may faral wala dara. te si sa dëgg ngay nekk di yow dina dal sama xarit nga yow te yow nit yow da ngaa def lu lay dalee. voilà la yow foog foog si Sénégal sëriñ yi toog duul. am de bi ma ci seetaan. Sénégal day dóor bii nangam ah tuuti ma xar data ndayam dugal ci sama téléphone bi mu doon Sonatel. toosu ndeyam. wuy ma lëmmi si. dafa lay vaaree. xanaa kon ma ma xëcc si waaw kay nga xëcc ci gis nga waaw gis nga yow man li gën a neex mooy ba duggee ci stade ba njàpp bi nga maye ko waa noonu noonu nga gëj non <laughs> sa vidéo yëpp doomu nday boo moomu ci gën a neex ba ngay def esat ak ba ngay génn dama réew mi bëgg a billaahi. yow xoolal la Messi yàlla mooy maye. yàlla mooy maye maanaam yow fekk nga fi sëriñ yu bëri mais am na lu la yàlla may. ba gi sëriñ Babacar a man bu ma dee seetaan dama naan karamba am na lu ko yàlla may. Hmm. gars yi parce que am na lu la yàlla may sa waay man du ma jékki-jékki di jël ay ndox mu ak boisson di ko sotti nit mu yuuxu te yori rabbaay xanaa man parce que loolu yow rek ay lekk tuuti la wala ay dëbb. sama boisson bi bu ma ko jëloon sotti ko tubaab ci kaso bi laay dee yow boo ko boo ko xoolee man de jënd la wala dëbb nga sotti ko ko cocc lay def ak yuuxu mu xam ne ay rab la yor am na lu la yàlla may ne ko gars nangu. des fois damay jàkkaarloog malade ni ma taxawee ni di ko xool mu arrière ba ni këlëb te du ko laal. te du ma tari benn saar. billahi mais après lépp dama koy delloo yàlla sant ko yàlla suñu borom gërëme ko Serigne Fallou Mbacke. tey ku fi léegi kay Serigne bu jéem kay na fekk nit ku taxaw rek wala mu dem fekk Macky Sall pale sotti ko boisson ne ko daa yori rab Macky moom ko xool am nañ jinne léegi demal fekk woon ne Serigne bu ñëwee demal pale nga sotti ko boisson ne ko damay dindi jinne man de ñemewu ma ko man carrément. waaw gis nga. war Messi la Messi tax mi ngi noonu waaw la Messi daal doxalal Sénégal lay seetaan da ngaa bokk Ramdaan Ramdaan famille bëgg la. Armand Ndiaye mi doon woote mi ngi toog ak Amady Badiane mi ngi toog ak Mbaye si Ndiaye mi ngi toog ak Fallou Ben Samé ñoom xaali mbay ñëpp ak lay seetaan dano nekk ci dépression war a dem tëgg New York. mi ngi seetaan live bi. waaw ñoom ñëpp ak lay seetaan tout. Wally mu ngi seetaan live bi. waaw léegi nag loolu a def ko mais chaque jour say biiri wax dama bëgg nga ma cee jiital toujours yàlla gannaaw yàlla rek jeex na noonu laa ko bëgg yàlla yàllaay buur ndax gis nga karama yàlla kese yàlla mën na laa wan ba nga gis yàlla moo yàlla moo nekk bindeef moo xamante ni mën na laa wan ba nga naagu ba yaakaar na yow gis nga lépp mu bàyyi ba suuru match ba mu sensé ay biram ba mu jeex tàkk yàllaa man loolu kenn mënu ko. yàlla yàlla kenn xamul ay mbiram foo ko natt weesu na ko karamba yónni trente sept mille huit cent neuf cent quatre vingt sept jinne ne leen jàppal leen ma tàgg ko gardien bi bu match bi commencé dugalal ma lii yàlla jëlaat junne yëpp renvoyé ko dem dugal ko ca kaawu Sénégal ya ñun jënd yee ñëw suñuy kaa contre yaa ngi jàllale message bu am solo yàlla rek ko man yàlla moo yàlla mooy xool lu ko neex mu def ko mais en tout cas nit ku si nekk li nga nekk gëm ko nga dem si ba jeex tak dem si ba jeex tak bu laajee bakkeen nga joxe sa bakkeen bii nii nii nii nii nii loo am nga xam ne lii la ma yàlla may tey lii mooy sama cër léegi nag yow bul joxe sa interview bëgguma nga may sa ménagère te man maa koy wax bëgguma ngay joxe benn escore bul joxe tous yamal ci dina gañe wala danan ko gañe rek loolu sax jurul wax yow jàpp ci rek voilà kam gars yi liñ naan karamba dafa joxe. non non del wax léegi comme yow waxoon ne sax day am defet naa nga bul waxati yooyu yow léegi xam wax léegi yow del wax naan say biir wax insha allahu rabbi lu ma ci mën a jàpp dinaa ko ci jàpp ba Sénégal gagné Séné yàlla moom dam bul waxati defet wala day gagné wala duñ ko gagné escompte bi deux la trois bul waxati yooyu yëpp. yàlla baax na. da ngaa bari noonu. bilaahi te defuma leen dara. léegi nag bo baree noonu nag da xam li ngay wax. Hmm. del wax toujours bu soobee yàlla dinaa ci jàpp. incha allahu rabbi li ma ci mën bu neexee yàlla incha allah comme li may wax rek. man samay wax boo xoolee samay vidéo yi may faj man samay wax leen da ngay dégg jërëjëfe yàlla suñuy borom jërëjëfe yàlla suñuy borom jërëjëfe yàlla suñuy borom jaaraama Serigne Fallou Mbacké man samay vidéo est-ce que samay vidéo boo demee dugg sama TikTok est-ce que di nga dugg si vidéo boo dugg te doo mas tudd yàlla man. jeex na bëgg. dam ngeen a bëgg xam Sénégal yi di wax naan Adama dafa kii ak Adama dafa nangam kii sama xarit la sama waay la ah. te man maay ménager am ménager am laa te lu ma lu ma ko bëgg a Adama nii ni waxee dëgg laa wax sama sama hmm. sama xarit bi amul ku ko yóbbu baar hmm. wala dara ba mu commencé ba tey kenn mësu ko yóbbu ka dafa dugg stade ba fee Njab njabu bandem. mais doo waral gars yi. mo yëngal gars yi di wax man leen xoola mais instant boobu xama nga man su ma bëggee di wax man bëgguma ku may ku may laaj kam gars yi nañ lay laaje yooyu dañ lay bëgg a fenloo. waaw dëgg la de. man ma dee su ma dee bay joxe score kenn du ma ko laaj. waaw dëgg waaw maam maanaam liy dem ma tax ma koy wax dama koy teg si lu leer nañ. mais dama man nag en tant que ménagère damaa bëgg chaque jour bu la dee wax ci match bi neel gannaaw yàlla ak yonent bi dinaa ci jàpp ni ma ci mën a jàppe ndam li yàllaa ko yor point final del yem foofu incha interview bu mën a doon nag hmm. bu la ko jox ba nga ne Sénégal 4-0 lay dóor wala 3-0 ndax loolu mënoo koo xam yàlla mën na la koo wan après sensé waat ko bari sëñ Fallou lu leer ngay wax boo fi daf daf loo nag ba génn déggoo samay wax naan Sénégal 4-1 lay dóor yàlla jël kaan yëpp sensé ko ñu nokk ñu ko bu boobaa nag Messi day jinne <laughs> sama xarit bi <laughs> bul joxe escorte de yemal ci naa ci jàpp rek waaw. xoola waaw <laughs> man yàgg naa joxe escorte day yàgg naa ko joxe. te day am ñu topp ma si kenn yóbbuwuma si vaar mais instant bi comme noonu yi. waaw mais ji waaw jamono ji coupe du monde bi sëriñ ñi lay xeex dafa bëri. ak ñi lay ñaanal pour seet pour nga dem vaar moo tax ma lay conseil loolu bokkut ak jamono ji réew bi da nga koo téye. Hmm. lu leer. moo tax jamono ji moom bu commencé déglu score. Hmm. ñaanal rek man bu gañee dinaa xam ne yow ak yàlla. <laughs> sëriñ yi des yëpp dañuy dugg. yàlla baax na yàlla baax na yàlla baax na incha allah daal. le messi le messi le messi. waaw léegi nag le messi. nag ma tuddee waat deuxième oh. jinne. deuxième jinne ma defaat ko vidéo dama man sama jëmmi bopp dama koy yebal mu am ñu may lekkal ndax man am na dëmm yu ma sonal dan maa dara rek. ban sëriñ nga koy njëkk a jox. non man sëriñ bi muy njëkk a lekk kunkande moom waxuma la lekk mais damaa bëgg ñu ñu defal ma ko dibi ñu dibil ma ko bu ma foofu ñu misuwir ma sëriñ boobu borom gimiñ ko Cheikh Ahmed Cissé moom damaa bëgg ñu jàpp ay ba ay ay rabb jam ko ko nday ci bulu koy bi ba mu mokk ñu lekk ko tëbaskee koy bi maanaam jënd bu sëriñ daal laa bëgg nga envoyé ma. léegi bu dee ñetti jinne loo ciy non ñetti jinne kay man daal xoolal door ma jinne yoo xamante si nii daal aay nan ay goo xamante si nii bu ma nee eh, man la boos day néegi di fële laa la yebal pour nga téegalal ma ndayam ñu téegal ndayam ñëwaat fekk ma fii jinne yu sadi léegi léegi lañ koy def si cent cent waaw gisoo jaay borom jinne yi ba pare nag karamba gaa yi danoo war a moytu yat bi yat bi ñu koy xeeb mais bu xamoon sax yat bi li ci nekk gis nga bu ngeen xamul li nekk ci bant bi karam laa di yore da ngeen moytu de kajumba kajumba boobu kooku mooy kajumba bant bi bant bi bant lay naan de ak deret boole ko si du naan leneen deratu gileem deratu ganaar bu te dañ si xamul bu siigee day sab de day yuuxu de. waaw gis nga waaw. te bu yuuxoo réew mi yëngu. la de wax dëgg yàlla du ma la nëbbu de loolu ngay wax noonu bari te te bu ko siigee day yuuxu day sab. parce que instant bii nii comme sëriñ yi dañoo. comme sëriñ dañoo soxla moo tax xoolal xoolal mystique bu ñuul xoolatuma dara. mystique bu karam maanaam yàlla may na la. instant bi ma ne yow noonu ku nekk ak na ngay fajee ak ni ngay tojee sa bopp kii gis nga njaago jàmm gën benn sëriñ lan am muy meeru njaago bi kooku aay na trop boo yeggee foofu moom ay sàngara la lay tuural wala ay deret yaa ngi dégg meer boobu nekk jàmm gën waaw meer njaago ko ñu jàmm gën ko ñu njaago kooku xam naa ko bu baax ku waaw bu dee sa liggéey sàngara la laaj ak deret reyal nday xar yi deret ji tuuru sàngara ji jolli réew bi tàkk xanaa doo xanaa doo gis des may woo na ayte su ma woo na de ak Karamba kii may ménager am su may wax ak moom da ngay damay bàyyi ku tegal sa waaw Karamba nga ne déggoo waaw man des fois damay rey jël deret ji sax xëppoo ko bokk. comme ni ma defoon stade Iba Mar xamal tax ma. damaa doon doomu tuur damaa juddoo si tuur màgge si tuur. sama xaru ngénte bi ñu rey yàpp jël dajale ko yóbbu ko suñuy tuur. moo tax des fois sama liggéey comme li may liggéey man dama see feer xamul dax ma feer si. dama fekk samay maam yor ko ba sama mbokko bu feebar pour nga dem fa sangu dañ lay tuural. loolu moom suñu yëf la. ok Karamba. voilà moo tax man dama see feer. gis nga bërki démb ba nga jotee bërki démb ba nga jotee ak Cheikh bërki démb ba nga jotee ak dama laa woo téléphone am wax yu ma la wax. wax yooyu xamante ni du waxu kaw woo seex am lu ma ko wax parce que ñaari jeune bu ni ànd nekk mbuur yàggandoo yenn yi da ngeen koy daw parce que amul njariñ man lu ma la war a wax dama la koy wax lu ma war a wax seex dama ko koy wax mais pas ci ay live day xëcc fee de saaga muy wax fee loolu bëgguma koo déggati ci diggante yéen ñaar man ki lii laa bëgg a gis sa liggéey ak ci li nga nekk lenn moom la ñor. sëriñ bu la transféré tra transféré lan koy xawma trans trans ah, transversé doxaanal ndeyam. loolu du ma ci xalaat. waaw kay li ci des nga bàyyi mu sedd ñi lay tudd ñii ñëpp danoo bëgg am ci bis bi rek. parce que gis nañ ne nga réew mi moo tax ñu lay jéem a yóbbu faar di la fenal naan nii waa mujj nañ koo am na Macky Sall yabal na ko Karamba waxu leen lool daf na leen ne leen am na ku fi jëw waa Macky Sall moo ko fi yabaloon mais waxu leen ne leen Macky Sall da koy jëlal jet privé mu dem Qatar. dee leen wax loo xam ne nii Karamba wax na ko ngeen bàyyi Karamba mi ngi ni sosal naan joxe na escorte joxewul dara. billaahi dama bëgg mu leer rek. bu soobee yàlla la tëkkal waaw. waaw bu leen ma yóbbu ñoom su ma demee ba sonn man maa yóbbu sama boppu vaar. kam ñoom loolu lañ bëgg. xam nga nit ki topp ba ba ba nga sës pour daanale léegi nga leen kaa leen ma daanu ndax ngeen am jàmm yéen man ma continuer sama yoon. man moom score bi nga joxe woon sax man mii rek xamoon naa ne Sénégal Hollande day ñaf ndayam parce que li nu manqué ci équipe bi la. Hmm. moom dëgg bu leer la. mais équipe bi équipe yeneen équipe yi bul joxe benn score ay Espagne mm. ay ay ay ay ñu ci mel ne Espagne ñu ci mel ne ay Allemagne ñu ci mel ne ay euh, euh, nun koy waxateeti waay Angleterre bàyyil moo sedd jàppal ci équipe bi ni nga mën a jàppee. waa dégg nga xam nga moo tax. est-ce que ko joxee ban njëriñ la ma amal amul ma benn njëriñ. amul njëriñ ay noonu la wala benn affaire. waaw amul ma benn njëriñ. yóbbuwuma kay léegi nag. yóbbu ma ñooñu ñu ne jàpp leen équipe yooyu ay doomu xaraam lan Espagne Angleterre ay Allemagne ak Belgique ak yooyu faale wun ay jinne ay rab jàpp leen ay doomu xaraam lan bu nu dayee du nu laabu bu la kenn dugal ci yooyu dañuy bàyyi ba équipe bu mag ñëw ñu naan la waaw karamba score bi noo ko gisee ay doomu xaraam lan ay football kat lan yore ay bay bëgg a dee gëmuñu sëriñ bul fa joxe tus mm-hmm. yow ku la laaj ci équipe bi nee ko ginnaaw yàlla ak yonent bi dinaa ci jàpp ni ci mën a jàppe point vaar doo ma sa dem vaar bilaay incha allah te noonu lay deme sax may ménager gars yi lu may wax dama bëgg man mhm. kii dama koo soxla ba ci kanam parce que liggéey bi muy liggéey moo ma amal njariñ di def ndey jinne yi ñuy saw ba leen di seetaan man loolu damay bégloo di leen xam di bañ mel ni mbége bàkku ba doyel yëngal waaw yaa ngi dégg man sama faj sama faj daa neex de daa am na fecc am na am am na lépp te damay faj de te nit ñi dañuy wér dem ñibbi xam nga mosoo gis kuy faja noonu si àdduna di fecc parce que yooyu yëpp damay bëgg gars yi di ma xeeb. maanaam a boo beeg bi mais ay ay bu ma <laughs> mu daan taxawaloo mujj nga koo nangu. waaw. dégg nga li ma leen wax. gars yi kanam yàlla def na lu ma ko wax lay def kii mënu leen koo dugal. bilaahi lu ma ko wax ne ko karamba defal lii loolu lay def parce que maay xaritam te maay ménager am sax kay. lu leer ngay wax. waaw mais di di téye nit di ko dugal di ko sëkkatal micro yi di la tiim faaw nga doon nandite. bar sëñ Fallou. bilaahi faaw force nit ki ne ko da war a joxe escort par force pourquoi loolu fu mu am. loolu démb moom laa wax si man leen léegi lan ngeen bëgg léegi da nga bu la tiimal micro ne nga ne ko score baa ngi biir data ndey bul joxe score bilaay waaw sëriñ yi ci des nag yu ndaw ndawaan yi yow duma la ci boole mais ñeneen ñi paayeeg ñeneen ñi dama bëgg Macky Sall boole leen ca benn partenaire dugal leen pale tëj leen suuru match bi ku ne mu wax ne match bi nii lay demee ñi fenkat yi nga xam ne dañuy joxe score bu demeewul noonu ñu simi leen teg leen ci kaw euh, euh, taabalu pale bi woo police yi ñu katt seen nday ay liif ci taar yi ba ni bëgg a dee dañ leen di tëj nag ci néeg ñoom ñëpp ku ne wax li nga mën Sénégal ñaata ñu laaj ñëpp laaj Moustapha Dramé laaj kii laaj kee ñoom ñëpp wax ñu bind teg bu ci demeewul loolu rek ñu simmi seen ndey ba nu set teg leen ci taabalu pele bi doxaan seen ndey léegi fen jeex Sénégal wala na noonu loolay solution duul lu leer lu leer ngay wax ah mais ni rek di lay bay daa yomb du leer lu leer Sénégal noonu la war a mën waaw sëriñ yi avant match bi nga ah. leen di woo avant match bi ngay jël Moustapha woo ko Kunkande woo Cheikh Cissé woo ñëpp ne leen loo xam ci mat bi mu ne la Sénégal day door 2-1 kii ne la Sénégal day match nul kii ne la Sénégal nangam nga bind lépp denc ñoom ñi ngi ci pantre bi du génn comme ay xëti dañ leen di tëj rek moom daal match bi jeex mooy tee ñu tëj leen match bi nag bu nee tar ñu xool analyse demeewul noonu ñu simbi seen nay ba nu set teg leen ci taabal yi duxaan seen nay ay liif ci taat danañ bàyyi dul loolu mooy tourné solution doon sëriñ bi fii loolu koy fay. non <laughs> non Adama dina ma rey quoi non wax nga dëgg de beneen yoon bu ñu matati kenn du wax. wala gars yi noonu solution <laughs> gars bu dul solution ngeen wax ma rek man damaa bëgg rek solution bu baax. <laughs> waaw. duul lay bàyyi mu ci baax gars yi gars yi solution la. solution la kay. waaw gars nag dama bëgg ngeen xam karamba seen karamba la te ba pare jeune la yaa ngi dégg karamba karamba Sénégal la moom day bégal nit ñi même bu dul sax li muy faj dafa saf xoram man dama koy xool rek di reetaan surtout njaam bi mu mayee nee foofu dama ko enregistré di ko seetaan chaque jour maanaam moom jeune la day bégal tamit nit ñi mhm. nit ñi dañuy reetaan bay bëgg a dee ko stressé yow bu seetaanee ni ngay fajee rek day ree bay bëgg a dee comprendre nga waa léegi nag loolu dafa neex quoi même bu dul dara loolu dafa neex léegi nag dangeen koy jàppale jeune la. des fois da ngay gis ni soo gisee des fois may faj di fecc wala benn affaire des fois mu wax loo xam ne pour gars yi parce que dafa am ñoo xam ni seen télé la ñuy jàpp sama kii bi di ko seetaan. maanaam nit bu maanaam des war na def mën na def lu la metti des fois mu def loo sëriñ Babacar si billaahi wallaahi wa taala ku ci amoon problème ci yéen billaahi soo ko woowee téléphone ne ko karamba bu fekkee du ma la ko defal lu ma la waxati ci àdduna bu ko gëm xam naa ko bu baax ku tàlli la koo xamante si nii day jàppale ay nit billaahi wallaahi wa taala man du ma fen man duma ma fenal nit noonu la mel te fu ma dem seede naa ko fa wax naa ko fu mu nekkul moom te xam na ko loolu sama wax la parce que loolu moo am billaahi wallaahi wa taala nit moom wax dëgg rek waaw wax dëgg rek ba ba ngay nit ku baax la waaw jàppale leen ko zëñ tanaa la liggéeykat la mbaa leer na. loolu de laa soxla ñu dimbali ma ngir yàlla. waaw kay leen ma. waaw mais mais nag waaw mais di ko loo wala naan ko da nga koy yóbbu vaar wala da nga da koy dugal loolu kii vaar jotagul ci moom sunu borom teral na ko ba bu doon duulin lu mu duul dëgg la kon. waaw. ah bokkut yeneen sëriñ de xoolal sëriñ bi ci naan Sénégal dañ koy xawma lan un zéro lay dugal bii bi kenn koy dugal la waxoon kuyaate xaw ma kooku bu ma jege woon ba ma katt ndaye mbaj bu ma dëggee ndaye mbaj ngaay billaay lu mu guddi guddi guddi guddi dina ko fekk si ngeen soor du paas bun gi nga may aal omelette ko waaw gis ga yow moom yaa ci aay yow da ngay ñëw ci baatin di doxaan seen ndey zaahir nga lakk seen lëfal ndey dem sa yoon mën naa leen a traité man mën naa traité sëriñ yi waaw sëriñ yi moom yenn yi man xaaral noppi sax gars yi dañ naan maa sonal nee nañ ma wàññi saaga yi quoi. waaw non non saaga non yi saaga yi wàññi ko parce que léegi yaa ngi doon léegi yaa ngi bëgg doon kilifa. Mm-hmm. boo demee bay nekk kilifa ci réew dangay ngay wàññi yenn saaga yi mais teewul nag pare saa yi sa yaram dina tàng parce que nit nit la mm-hmm. mais léegi kilifa nga ci réew mi. jaay nga sa image ci domaine bi ngay liggéeyee ba réew mi xam la waxuma la Sénégal de monde bee la xam nee naa la damaa génn ñu naan ma yaa dugal karamba kooku mi ngi toj internet bi léegi nag yaa bëgg a doon international yëmutoo Sénégal de ndax Sénégal koo ne xam na la mais génn nga Sénégal fi mu toll ni yow yaa ngi ay Hollande ñi ngi dugg sa tur ay Angleterre yaa ngi ay Amérique ay Canada maanaam yow daal xoolal yaa ngi bal Las Vegas fi mu toll réew bi yaa ngi koy yëngal fu ne. billahi. surtout dans monde international nga. billahi wallahi. waaw léegi nag liggéeyal nga dem sa dem. waaw conseil yi ma la conseil nag yii bu ci bàyyi dara ku la dénk micro di la Sénégal journaliste da lay ruux di la jamb di la ruux di la sës di la sës da nga leen di gën a dëgër bopp gën leen a mën communication. Mm-hmm. bu nekkul ne bu télé yi takkee micro yi rek da ngay afale naan Sénégal dina dóor huit dina dóor dix bul wax dara gannaaw yàlla ci sunu borom dinaa ci jàpp comme ni ma ko daan defee point final amul benn problème incha allah waaw léegi nag maa lay bàyyi nga doxal dégg nga maa ngi wàcc man damay kii damay kite nii sax li ma doon jàll message boobu rek laa bëggoon a jàllale kam